إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك إني أخاذب النصارى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 ci bis bu mag bi muy bis boo xam bisum mbégte la bisub yaakaar la bisub rafet njort la ci alquran yi ñu fiy def xasaay diñ fi jàng inshallah allah jërëjëf sëñ Cheikh na présentation ba am solo boobu inshallah yow di la sant baax ci teewaay beeg coono yi ngeen jànkonte ba ñëw ci bis bi ngir taxawee liggéey bi waaye xam ngeen ne seen liggéeyu maam la moo tax kon xam baax a eh, di xaj na boobu nuyoo waaye di am mbégte bu baax a baax it muy biñ biñ jël nii day lu am solo lool ci yoonu murit أو بحب ياتي كون حلا عندي بربي بريتي تم بفينك موي لو خامن لي نوار وقتاني موي بغ يونتبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تي بنوم سنجو عليهم قل إن قل إنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سوين بقى yàlla bëgg leen na ngeen ma topp bu ngeen ma toppee rek yàlla dina leen bëgg kon ku ko topp topp nga ko mm-hmm. topp yonent bi sax topp nga yàlla mm-hmm. waaye ku lànk nag am na am na ñu ma yónni ci yow mm-hmm. <laughs> muy lu am solo loo xam day mel ne uh-huh. eh, amut séparation ñoom ñaar amut séparation ñoom ñaar lu ne daa bëgg daa bëgg bi boobu dëgg la lu mm-hmm. Mm-hmm. naa kon léegi nañ ci mm-hmm. buñ waxee nit ki bëgg ba pare mooy lan dañoo seetlu ne sax sirrun ilaahiyun awalan dañ mbirum yàlla la moo xam ne moo koy roof ci nit ki bu roofee ci nit ki nag dañuy teqale bëgg ak xemeem bëgg mbirum xol la mhm. waaye mbirum yàlla keneen jox ko keneen te mhm. ci kaw loolu nag moom dañoo jàpp ne bala ngaa mën a gëm dara mhm. bala ngaa mën a def dara day fekk nga bëgg loolee ba noppi moo tax ñoom mahabbat mahabbatu cheikh yaa ngi dégg day yokk tan mu mm. watan mu mm. maanaam day développé développé ba mu ji àgg ci daraja nag yoo xam ne mm-hmm. day seey mm-hmm. day seey muy la am solo loo xam ne it xam mm-hmm. naa dinañ ci agsi insha allah uh-huh. xam naa loolu tullaahi diini ma leen gis nañu lu ko kon daraja yi nit yi tasawuf yi tegoon même àggoon na ci daraja joo xam ne moo gën a bëgg googu kon moom nan la ko dundaloon comme moom loolu lañ dégg da di ko xam ne dafa déggoon junju yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan junju mhm. dafa déggoon wax yàlla yim daan wax ne bu ngeen bëggee ma bëgg leen topp leen yonent bi mhm. bu ngeen toppee ma bëgg leen mhm. yàlla mukk du ngeen dugg mukk li feeg gëm leen yàlla mhm. waaye du ngeen gëm yàlla mukk li feeg bëggantewu leen mhm. ndax nag du ma leen tegtal lu tax ngeen bëggante mhm. ñu ne ko naam tegtal lihi farida hmm. ala kulli muslima hmm. hmm. dafa war ci bépp bu góor bu jigen te bu waxe bëgg yalla rek mo bëgg yonte bi ñoo bokk ñoo ànd lépp mënuñoo tàqali ko waaw léegi nag bi ko sëñ bi nim ko jëmale nak muy lu am solo lo xamne mi ngi tambulé ci bu mu ba sallallahu alayhi wa sallam muy lo xamne euh ci la ko def nak léegi mu nek ab sangam nga xamne amul keneen ku ko yilifati fofu nak fa lañuy ñuy muy lu am solo lo xamne bi mu ko defee rek ñëpp ne leen sama diine mooy yàlla bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg yàlla bëgg Muhammad bëgg yàlla njëkk wax ginnaaw mu ne bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy lu am solo mooy bi muy giñ dafa giñ sax sëñ sana laa gëm laa bëgg hmm. Hmm. mooy loo ne kon dafa njëkkiñ daan ne bëgg yàlla bëgg na yonent bi te hmm. yàlla moo xam ñaari gëm ñaari bëgg yooyu amul amul amul différence <coughs> bi nag mu ñëwaat daal di waxib mooy bëgg yàlla ta ci bugugo kuma ibaga sa ايها الذين امنوا عليه وصلي تسليما وعبده رسوله وشكره كون دا سما دينه موي بغ يالا با نبا تود ديكو شيكا ay tur yu bare bare ngir bëgguñ ko beug wala ngir magay gu mag mel non la ci am bi ci desit gina bi lolu amé nak nga xamné mom da ko def diiné ba nopi wa ci la jël nag rabbi na nga xamne di nga xuus geju alakané li annahu ndax lutax moy shaytané day nek ci wèr gi diko xëc nan ko ñëwal hmm, bakkan nan ko jaaral fe hmm, hmm. banex nan ko jaaral li sama ine jooju ma am ci moom ah mooy loo xam it waxaat na ko ba tey ci bi fuaadin hmm. gis na kon jaayante kilifa du caagi da ngay demal jox ko sa loxo waaw Ousmane bi bi te ñuy te fekk ko fa yonent bi jël loxoom teg ci loxoom ne jaayante na Ousmane dafa mel ni kon fàddu googu yi la sëñ bi dëgg la lu wér te xam hmm. moom fas na bu fi nekkoon fas na lii ñii di la ah. hmm. sang seen seen sang alaa kulli xaal wax la bare bare yoo xam ne hmm. euh, sëñ bi amul feneen amul keneen ku mel ne moom ci fànn googu noonu uh-huh. ginnaaw bi nag bi mu jaayanteeg moom ci la mujj na leeral daan Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasila tey ci moom laay fe sukkandiku ba lépp luy tiitaange yàlla fegal ma ko ci la wax ne zahara li anna rasulallahi qat wasilati qatan ila al ilahi mbir mm-hmm. day am buntu mm-hmm. ndax bamuy wax itam monsieur naan dalla allah allahu ala muhammadin mm-hmm. dafa ñew ci yalla subhanahu wa taala bëgg am daraja ju kawé yalla ne ko jaaral ci mom waye ba jaar nak mom ta def mu wax xamne qatan ilahi mu mujj nak di mel ko ko commencé ak mom, di ak mom di di waxtan ak euh bi ci gën a nekk sama loxo nekk sama loxo te te it na nga nekk sama kiiraay ci ci ci ci àdduna ak àllaaxira ci bépp hmm. fitna boo xam ne mi ngi ciy am. Hmm. alaakulli yu bëree bëri la. foofu da dem na bay wax ne. simaamiyal yawma buquyati ya bi mm-hmm. hadi mubayaha ila yawmi liqa mm-hmm. mooy yow mi nga xam ne yaay sama sang yaay sama sàkku teef mm-hmm. lii kat mooy li ma jaayante yow ba ba ñuy dajee <laughs> ba ba ñuy dajee la seen digg wér wér yàlla mel na ne mel na sonnoon na ci lool bëggoon na ko ba mujj mu jàppe ko sikk bu wér wér bu mujj mu jàppe ko bàkkaar ngir gis gi mu ko di wax ne yesu wajhi taiban allahi tawbata man mhm. bil xorfi amaar waaw mm. Mm. loolu tax ma wal wal xubb yut nii mm. kon uh, bëgg googu moo ko doon moo ko doon moo ko doon innal muhibba liman yahwa xam siyaare ji ma ko siyaare ko moom a gënal loolu lépp gënal mhm. demaat sax daan ne gis naa ci sama borom ne dajeeg moom moom laa gën a bëgg ci mhm. néeg bu mhm. bëgg moom rek laa bëgg uh-huh, uh-huh. dem ba ci nag mu xam ne nag mbir maa ngi bëgg a sori. mu far mm. nag joxe boppam carrément ne bu. Mm-hmm. muy loo xam ne bu fekk danaa man naa joxe sama bopp ngir moom mu mucc naa joxe sama bopp. Mm-hmm. muy sama deret wala sama làmmiñ wala sama yaram wala sama. joxe boppam nag mm, mm. am na beneen xam ne mm-hmm. da ci a wa ahli mm-hmm. Mm-hmm. Euh, bi dafa ñëw joxe euh, jekk naa pour joxe sama bopp jekk naa pour joxe sama lépp ngir moom mucc ci naka mooy bi mu waxee ne sama teg sama loxo sax mhm. mu mu fekkoon mhm. ginnaaw bi nag ci la dem ba càgg nag xam na ne joxe na léppam amul mhm. amul dara lu ko dese muy diggante ma yàlla mu giñ ci yàlla lay wax ne rasul muhammadu ki nga xam ne moom laa gën a bëgg ci jaam yëpp amul keneen ku ma bëgg si kon sama diine mooy bëgg yonent bi la defoon diine donc mooy sama trésor غنمت حب المصطفى واكتفي بذاك فالمعطى كفافا يكتفي فالمعطي بين المصطفى راضي في شيء في كل شيء xam ne kon li ñu waxoon ci bëgg nit dina bëgg dara ak xemmeem waaye moom mujj na yëmul ci bëggam moom la ñuy wax ci arab moom la ñuy teq dana nabi garadi fii kulli shay fii kulli xam ne amatul dara lu waaw léegi nag fii kulli shay li ci ëpp solo mooy la ma wax ne wa maa yaa baahu abaahu abaahu kon lum bañ loolu laa bañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fegal lépp loo xam du ak beugum hmm ci wolu gu ko wolu waaw mhm. dan ne ci la waxa tamit dem ba jaag mo ne sax beug googu ma ko bëgg tax na may sax mhm. ndax nit dalay lay man lay faj man lañ la demé ci feebare man lañ lay faj nga dem ci hôpital ñu fajj la ba nopi nga am kulay wétali ci hôpital waye momay fajj faj ba noppi ba noppi toog fa di ma wéttali mhm. da ngay ay hmm. nga xam ne euh, day mel bi mu waxee ci la nga xam ne lépp leer na léegi hmm. mooy sama wéttal mooy sama mbégte hmm. mooy sama moom mamaati wal jannati day ne mi ngi agama kita ci a gonna ci daraja ju mujj bëgg man fegal loolu mu ngoog mu ngoog maanaam mooy li wax ne ci na la fi nafsihi huwa fi nafsihi fi nafsihi si wasmihi muhammad nga xam gi ko muhammad rek ko ci moy bëgg xamne mom moom lañu yàlla tànnal mm-hmm. ngir jëmum ngir jëmum li wajhi man laysa lahu kufan ahad mm-hmm. yalla dañu ko tanal ngir jëmum jëmum mm-hmm. xamna nañ ci dugg ci di Cheikh Blan doon wax bëgg gi ko comme niñ ko waxoon léegi bëgg gi di augmenter di yok yok ba tax mënut mënut bëgg dara amul doom amul sët amul jarbaat amul mbokk amul baay amul waajur ndax ci la wax ak jur la mooy xamilaa ah nga xam ne kon day mel ne lépp la bàyyi woon mm-hmm. daan ne yun si fuaadi xubbahu xubbal waraa mm-hmm. fa kayfa laa wa minhuma xustu jaraa mm-hmm. yu bari yu métti métti gi sax mm-hmm. maanaam yu métti métti yoo xam ne day mel da ngay xam ne kii moom desetut dara mm-hmm. euh, mooy ginnaaw ci laa xam ne sax dem ba ci ak bëgg gi ne commencé indi résultat ci moom mm-hmm. muy dem kon nag dem ba ci yàgg nag nee nag mbir commencé ëpp loxo mooy bi mu waxee ne man di ci dexuk bëgg yonent bi loolu nag man di nag euh, ngaras bëgg yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. dem ba caag nag <laughs> mu farfal mu far lab nag mm-hmm. lab ci géejug bëgg géejug mm-hmm. bëgg géejug lab naa ci la mhm. bëgg yonenteem bi mhm. Ah, mhm. muy wax ju am solo ci la giñ nag giñ daan ne naa ci yàlla ne ku mel ne moom dootu ñëwati ndax xam naa ne fi mu fi ci moom dem ba ci yàgg nag mu jox ko xam jox na ko yaramam jox na ko temps jox na ko ay ay mouvement léegi mu far jox ko ak ruwaam nag mm. ca wax na jumlata maali mm-hmm. hmm? jox naa ko sama mm-hmm. ak samay doom mm-hmm. ak sama ñaari waajur ci lu feeñ nag nga xam ne nëbbatu ma dama ko jox lépp mu feeñ loolu mooy mooy njob bëgg nag ndax mooy njobbaxtalu nit am solo wax naa ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngi toppee ko yàlla ca lay wax ne laka yaa nabi manazili wa mawatini wa wahab lahu sirri jahri na ko jox sama sirru samay asraar lépp na ko jox Muhammad moo xam lu feeñ la moo xam lu nëbb la ak yu baree bare bare yoo xam ne da nga xam ne sama retour ci yow laxtira bi nag eh, moo ko du mooy bukk eh, eh, hmm. mm-hmm. ginnaaw bi nag ca la ba caag mu jël hmm, bëgg gi mu ko bëggoon def ko mu nekk bor bu mu war a fay mm, nga xam ne yaa madi mm, mm. Mm. ginnaaw bi nag ci la dem ba ci yàgg nag mu commencé nag yi défier ñi nga xam ne ñoo bëgg a wutal Muhammad morom morom nga xam ne musta nangu morom mooy lam yaati walay sayti mislabni abdillahi dil ayaati ci ay kéemtaan loolu ku moon ku mel ne mu amut dina waxaat ne wallahi lam yaati rasulullahi ma illa alladi xaata bi kalimi kon Muhammad am na daraja yoo xam ne moom rek moo ko xam ku dul yàlla xamu ko xamu xamul darajaam daane Muhammadun fardun yafuuqu tasniya wa faaqa jamaa koo moo moo moo kawee moo kawee mhm. ak wi ak rusul yi anbiya bu ñu ko waxee mooy koo xam dañ ko jox waxyu te dañ ko jox waxyu te waxuñu ko asda waaw rusul nag mooy koo xam ne dañ ko jox waxyu mhm. ba ñëw mhm. ak innam ay faaxal xulxaa eh. doomi abdullahi ji moo gën a kawe bépp jaam ah lafdan wa maanan Mm-hmm. khuluhan wa khalqah mm-hmm. ala mm-hmm. eh, ko daal dañuy waxtu moo ñu xaw a euh muy ko xam ne dafa tegoon sangam ba fu ko kenn tegutoon ba tax ba ag ci ag bay mande ci sàngaras bëgg bëgg ko tël morom nangu dend kenn jàppe woon koo xam ne noonu nga waxee muhammadun fardun yafuuqu tasniya wa faaqa jamhan nga xam ne nëbbuwul ci kenn ne lam yafa kawnuhu raisu rosa nga xam ne parce que ci masalik da ngay dégg mooy la képp ku ragal yàlla lu ragal yàlla da ragal te bu dee ci masalik fi bu dee fi da ngay gis ne li war ci jambi moy fa ab serignam tek tanka mu tek moone yonent bi yonent bi ñone bëgg leen yàlla ngir xéewal mm-hmm. bëgg leen ma ngir bëgg gi ma bëgg yalla bëgg yalla mm-hmm. bëgg leen sama ñoon tam ngir mm-hmm. ngir bëgg gi ma bëgg kon ñun dañu wara bëgg señ Tuubaa ngir bëgg gi bëgg yonent ila jënaani bis hmm. kon képp ku nar a texe bépp xol bu nar a texe boo demee di nga ci fekk Ahmadou hmm. di nga ci fekk sama tur hmm. léegi nag ñi ko moom déclaré nga boobaa dig ma afro kon loolu la ko waaw sëñ xulub man lam yuhibbuni ala wajalin bépp xol bu ma bëggut dang dang lay dëkkee tayit wala yulaquna maaraamu jinne yi bëgg ma yonent bi bëgg ma kon amay bañ yuhibbuni malaa'ikul baaqil karim li wajhi ngir jëmmi yàlla ci maa falaahin ànd ak texe goo xam ne doog mu ko mu ne xad waddani man amanu fil jinni xibbu ni yab wujuhi shuhada tabyad mm-hmm. kon bépp xar kanam xam ne bëgg na ma mm-hmm. day weex tàll leer nañ mm-hmm. bis ba nga xam ne ca la xar kanam yeet leer ala kulli haal wax la ju bare bare joo xam <laughs> waaw mm. xam naa ne ñun it foofu rek ñoo jàngal yoon ci yonente bi war koo roy ci loolu bëgg ko moom it niñ koy bëggee jox ko suñu lépp kon suñu Cheikh naa ñoo ngi sant bu baaxa baaxa baax a baax sant bu baax bég lool nak bég yi lool salatu wassalamu salaam ala mawlana Muhammad wa sahbihi wa sallam taslima ak Cheikh Ladi إني أخاذب النصارى في أرض حاجي مسرى إني أخادم النصارى ترى